ndeysaan lu ne lañ leen di wax Baye fal yi waaye kenn du def lu baax te jëfoo luñ jëful ñoom Baye fal yi misaal mi nag doy na sëkk si ndog yi tey ñëpp a ngi togg ndog di joxe te royewuñ ko fenn fu dul si Baye Fall yi jullit bee ngi togg ndog di joxe am na ñoo xam ne sax duñ jullit ñoo ngi koy jëfe loolu tur bu ne lañ koy tuddee ngir bañ a fësal ni Baye Fall yi la roy waaye lu leer ba leer mooy Cheikh Ibra Fall noonu na sama yoon bi ku si séyut da ci njaalu maanaam ku bokkul sax si moom da roy ay jëfam boo bëggee lu baax